respecter seen fiche de parrainage. xam nga booy retiré fiche de parrainage danga naan candidat indépendant nga. candidat porté par un parti. ou par une coalition de partis. non non doo ko wax si si da ngay fiche de parrainage soit tu es candidat indépendant tu es, porté par par par si euh, tu es porté par un parti ou par une coalition de parti yéen. ci ban bannière ngeen retiré seen fiche de parrainage. loolu yëpp ay complications li ma la li ma la bëgg <laughs> wax yooyu yëpp ay ay guddal jël la dugg ci yoo xam ne après ay problème lañ fi indi li ma la bëgg a wax daal mooy <laughs> nga nga xam ne bool bool ko sa tey li ma la bëgg a wax daal mooy dem nañ retirer suñuy cinq fiches de parrainage. ah <laughs> waaw fiche 117 117 la defe naa dafa retiré il y avait 111. boo boo non Bassirou mooy 111. waaw Bassirou mooy 111 li ci koo nëbb. Ah, <laughs> Amadou Ba fiche 77. Hmm. dafa retiré parrainage au nom de Benno Bokk Yaakaar. Hmm. moo tax ma lay laaj yéen bi ngeen di retirer seen parrainage da ngeen ko retirer en tant que candidat indépendant euh, ban parti. lan lan ngeen xam nga ne affaire candidat indépendant c'est impossible parce que tu connais la loi te l'esprit de la loi. sur la question des candidatures indépendantes nit munoo nekk ci parti politique di def politique def base animation politique jékki-jékki rek du jour au lendemain nga ne indépendant nga et c'est ça que c'est ça et c'est tout l'esprit de la pour dire boo quittee parti politique di nga toog une année sans activité politique pour pouvoir te réclamer candidature indépendante léegi nag am na ñu koy utiliser pour jéem a créer benn climat non buy que parti bi dañ ko dissoudre képp ku bokk ci parti bi. waaw mais ci ban bannière ci ban bannière ban bannière <laughs> détails la nga xam ne ah, man fiche 111 li am solo daal mooy DGE mi nga xam ne duñ ñu may dara <laughs> bañ fa demee retiré nañ donc tu peux te rassurer nga xam ne kon am nañ liñ bëggoon jeex na mais ci ban bannière ngeen retiré c'est-à-dire c'est un parti qui qui qui vous porte c'est une coalition de <coughs> partis euh, qui vous porte parti coalition de partis anyway de toutes les manières fii ku fi dem élection di nga mujjee coalition mais euh, kii euh, comment il s'appelle Moussa mm-hmm. est-ce que hmm, ragalu leen bon il va encore m'insulter et dire que <laughs> il va encore m'insulter et dire que oiseau la mauvaise augure là mais ba ma leen ne Ousmane Sonko a été retiré des listes électorales lu nekk dégg naa ko est-ce que en prenant Bassirou Diomaye Faye mhm. est-ce que nekkul tamit une candidature en risque à à à risque maanaam Bassirou Diomaye Faye jusqu'à preuve du contraire il est électeur électeur éligible mais dama ragal dafa am est-ce que la ngeen ñaari mbir est-ce que mënuñu le délit pour lequel il est incarcéré mm-hmm. muy outrage à magistrat est-ce que mënuñu délibéré foofu mu am fa une condamnation bu ko barrer la benn beneen bi mm-hmm. bu ñu dissoudre Pastef ngeen dem cour de justice CEDEAO euh, amuleen fa amu leen fa amu leen fa ndam. Mhm. est-ce que les conséquences de la dissolution de PASTEF mënul topp seen candidat bi ba nga xam ne bu ñu demee ci cappaandaw la conseil constitutionnel da ngeen di yeewu rek ñu ne leen comme ce qui est arrivé à Khalifa Sall et Karim Wade que la candidature de BDF est est invalide. il y a loo xam ne moom gëwuma ko moom c'est-à-dire que dissoudre parti mu dem ba enlever à, à un membre. de ce parti les droits d'être électeur ou candidat kooku moom gis naa ñu koy jéem a soulever mais lu nga xam ne. mais du risque. non ça n'existe pas loolu c'est pas possible c'est pas possible tes droits en tan qu'individu ça n'a rien à voir avec les droits de la de l'association. on dissout l'association tu restes un citoyen avec tes droits et tes devoirs loolu moom jarul sax ñu ci épilogue bi ci topp mooy effectivement nguur gi moom mooy loolu si aujourd'hui on est obligé Euh, de dire que pour la phase de, d'animation des parrainages on va y aller avec Bassirou pourtant on aurait aimé y aller avec Ousmane parce que c'est lui le plan il a toujours été le plan du projet mais on s'adapte et c'est ça malheureusement li ñu jàngal avec ce régime on est obligé tous les jours d'analyser tous les cas de figure et de s'adapter à tout ce qui peut arriver et le plus important et je le dis et je le répète et c'est ça la fierté que j'ai quand même pour Euh, l'ex formation Pastef c'est que aujourd'hui difficulté yi ñuy dund wane na wane na sénégalais yi ni quand on vous dit que ñun projet bi lañ gëm gëmuñu nit ñi c'est une vérité absolue parce que tey bu ñuy commencer di adapté wu di def li ñuy def c'est parce que justement le plus important c'est que le projet arrive à bon port qu'à partir de 2024 ñu am koo xam ne et on l'espère et on le souhaite et on de tout cœur et on pense que ça va être le président Ousmane Sonko que mu jël réew mi teg ko dans une stratégie de refondation pour la souveraineté ah, mais les voies du Seigneur sont impénétrables da ngaa xam est-ce que non mais mais je mais par quelle magie ah mais attends <laughs> les voies du Seigneur du Seigneur sont impénétrables moi je ne désespère jamais. de ce grand pays qu'est le fiche de parrainage. mën na ko am ba léegi c'est pas encore ah, terminé. rek ah, parrainage yi deux semaines moo ci des. yàlla baax na Ousmane Sonko amul fiche de parrainage. Hmm. Euh, Cour suprême renvoyé na la balle au tribunal euh, de de de de grande instance de de Dakar. Hmm. ñooñu ils ne vont pas statuer avant minimum trois semaines bu ñu joxee verdict Euh, gars yi mun nañu. Mhm. Euh, def appel. Mhm. parrainage yi jeex. Mhm. Ousmane Sonko nan lay amee parrainage. ba tax ma ne la les voies du Seigneur sont impénétrables. <laughs> non bu ma tontu loolu ah, mais ah, mais si les voies du Seigneur sont impénétrables yàlla mën na lu ne léegi nag en attendant sàkk nañ suñuy pexe nañ avancé. le plus important encore une fois li ëpp solo pour ñun du nit ñi Ousmane da wax ñëpp di ko dégg bés bu ma demee ba ngeen jàpp man mi je ne fais plus l'affaire pour le projet jëlee leen fi ngeen teg fi keneen moo ko wax ñëpp di ko dégg et c'est pour ça que j'aime cette formation là à laquelle qui a été dissoute pour ne pas qu'on me crée des problèmes à la sortie de ton émission mm. mais que voilà on fonctionne sur des principes des règles te li ñu choisir nañu Bassirou moi y a des voix que je veux bien entendre mhm. euh, je bien les entendre euh, soutenir le, le le choix ardemment euh, pour le moment gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi noppi est-ce qu'un Birame Souleye Diop dina nangu le choix de Bassirou alors que lui il était le le le numéro deux. mais euh, Maïmouna. est-ce que le choix de Bassirou Diomaye Faye procède d'un choix démocratique yow mi doon casse démocratie interne dama ne Maïmouna il faut comprendre une chose qui est très simple le président Ousmane Sonko mooy leader du parti dans des moments clés il prend des gens il leur donne des missions et c'est un privilège man daf ma jël devant tous les cadres ne ma tu t'occupes du programme présidentiel législatif municipal je ne suis pas plus méritant que les autres c'est un privilège qu'on m'a et je et maa ngi koy jéem a def du mieux que je peux jël na Birame Souleye jox ko position bi mu ko jox mu ci góorgóorlu mérité ko wane ko tey nee na Bassirou Diomaye Faye mooy chargé animation parti bi mi ngi koy doxal. yow mi doon casse démocratie yow yow mi doon casse démocratie interne au PDS. non toi tu souscris euh, à ce type de choix unilatéral. non le secrétaire général d'une formation politique a le droit de donner des missions lii du question poste ou quoi que ce soit. non c'est des missions qu'on nous donne liggéey la du du du privilège man mënoon naa dem jëli ay fiche parrainage ah mais c'est l l'importance loolu mooy loolu mooy importance non on se ba pour un projet lu ñu fi nekk di xëccoo man ba ma duggee passé fële nu ma sa dégg ma xëccoo benn poste. mais y a des risques quand même. tu tu reconnaître nga ne y a des risques. on va gérer tous les risques c'est ça une stratégie Ousmane Sonko avec son équipe. on est en train de voir tous les risques et on va gérer tous les risques incha allahu rabbi jusqu'à ce qu'on puisse dire que le projet de PASTEF ira aux élections contre les contre les les candidats du système